Afri-Série, Cœur Djeggi, Afro et Nature, Nelis Fashion Beauty, Fewi Skin vous présente votre série Jigéen Jonge. néew kattan dafa nekk feebar boo xamante ne bu gaaw ci indi xeebaate la bu gaaw ci indi yabaate surtout nag ci sa digganteeg sa soxna. loolu moo tax garab bii nga xamante ne liggéey naa ko fii man ci sama wàllu bopp ci sama loxo ak xam-xam bi nga xamante ne suñu borom dénk na ma ko. garab bii nii képp koo xamante ne dafa am néew kàttan ci wàllu sëy bu fekkente ne dégg nga maam du feebar ci moom mais yokkute rek la bëgg suy paree pour sëy daf koy jël dix minutes avant l'action garab bii nii moom loolu moo ko tax a jóg mooy vite fait mais su fekkente ne nit ki dafa am feebar nag boo xamante ne dafa yàgg ci moom traitement lay def moom traitement de deux sachets mi ngi nii wala yu trois sachets su fekkente ne nag doomu aadama moom dara jotu ko maanaam mi ngi toll ci diggu ndawam dara jotu ko te bëggul feebar boobu ñuy wax néew kàttan di ko dab dafay jéem a wut gàllaaj bi gàllaaj bi képp ku ko takk sa ndigg néew kàttan du la dal sa giiru dund fekk yaa ngi dox ci kaw suuf di noyyi ci kaw suuf nga am gàllaaj bii nii néew kàttan du la dab du la dal ci sa giiru dund am na na ñoo xamante ne yàlla dafa leen di nattoo ñuy am awra bu ndaw boo xamante ne dafa gàtt ñooñu pomade bii laa leen di proposé nga xamante ne troisième pied la tudd bii pomade du massage la dafay yokk endurance dafay yokk longueur te itam nit ki su koy utiliser duy gaaw di pare ci say dañuy yëngatu ci wàllu ñaan yàlla ci wàllu faj rab ci wàllu istixaara ak lépp loo xamante ne jafe-jafe la yi nga xamante ne doomu aadama yi ñi ngi jànkoonteek moom si jamono bii ñu nekk nga xamante ne jamono bu të la jamono bu lëj la waaye ñaan yàlla mën na lu nekk comme ni ko yàlla waxee ci biir alquran wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin wàccee nañ ci alquran loo xamante ne saafara la ak rahma la ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gëm wa axiru daxwaana alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp yaxamu doomu adama dafay dund waaye li nga xam ne da koy taaral daa bokk ci leenu yitteel glam et beauté cosmétique nous vous proposons des produits haut de gamme produits yëpp ñu daal di ko defaree ak ay ingrédients naturels yëpp defar woo xam ne amul benn hydroquinone courtisan ou mercure avec des formulations innovantes l'ensemble de nos gammes permet de répondre tous les besoins du soin quotidien de la beauté pour votre corps andil nañu leen ay savon ay lotion ay sérum ay crème ay masque masques qui répondent à différentes problématiques comme l'hyperpigmentation, l'acné, l'excès de sébum. Mais nous faisons des livraisons à Dakar et sa banlieue, Hambourg, à Thiès, à Saint-Louis, Touba, Kolda, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. Nous avons aussi un service de conseil et de commande. Contactez-nous par WhatsApp et plus 337 53 52 54 82 Ambed Fass Yembel à côté de l'école privée Mamadou Dione numéro de téléphone 78 425 37 28 avec Glam beauté cosmique, le pouvoir de la nature, sur la beauté de votre corps. ñun ñëpp bëgg nañoo dund dans le luxe dund ci dëkkuwaay bu bakkane mën naa ne ak Gayen Seck Déco li ngeen di yittewoo ci matériel pour dund dund bu luxe dootul jafe ndax Gayen Seck Déco indil nañ leen système boo xamante ne ñëppay am ci bagage yi te dungeen ngeen ci yëg dara Gayen Seck Déco ñaari jigéen ñi social képp la ñu woote yow mi nga xamante ne yaa bëgg chambre à coucher bu rafet lool bu am confort ba noppi am qualité nga bëgg defar sa intérieur maanaam sa salon wala sa espace familial. daal sa chambre à coucher wala boog sa cuisine Gayen Seck Déco dañu leen indil tontin wu am solo jëme ci yooyu les produits king size yi ngeen gis nii léegi ñëpp ko mën a am su fekkente ne bokk ngeen ci tontinu Gayen Seck Déco bi kay ma wax la nooy def da ngay jokkoo ak ñoom dal di bindu ba bokk ci tontine wi bu loolu weesoo nga fexe di respecter séance su natt yi boo waree teggi nag yaay tànn lu la neex ci king size yi wala bokk ci xeetu meuble ñu daal di la koy am nañu ay chambre à pour enfants ay chambre à coucher pour invité lu jëm ci salon yi nag am nañu ay salon Turquie am nañu ay salon local ak i salon de séjour Gayen Sekideco am nañu ay tête à tête am nañu ay quatre places ay console ak i table à manger maa la ko wax lépp loo xamante ne dafay taaral kër boo ko bëggee mën nañu la koo jaay ca Gayen Sekideco wala bokk nga daal di bokk ci tontine wi boo teggee tànn sa bula la neex maa la ko wax Gayen Sekideco sunu showroom mi ngi fii ci Mariste wala ngeen jokkoo ak ñun 77 89 58 64 ou appelez le 77 767 08 57. Gaël Sec Déco, confort absolu pour le meilleur et pour le prix. bienvenue c'est Kër Jeeg ji Kër Jeeg ji ñu gën leen ràññee ñu nekk numéro un ci lépp loo xamante ne ni vente la ak conseil ngir ay feemu jigéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg ñu jaay leen lépp loo xam ne dafa soxla ci wàllum séduction wala chanteur bu ngeen jàkkaarloo yee Kër Jeeg ji ngeen am ci saafara ci lim gën a gaawee Kër Jeeg ji yemuñu foofu ñuy yëngu ci li nga xam ne moom moo nekk wàllum décoration décoration intérieure ay meubles ay chambre à ay salon ak boo ci mënti bëgg nag demal Kër Jeeg ji ñu jaay ko ay table à manger ay déco murale ay tableau d'art waaye nag la ci gën a neex mooy côté séduction ak chanteur bi lee dañuy jaay ay cuuraay cuuraay yu doy waar cuuraay yi mu ngay jógee jidda ak fi nga xam ne moo nekk Dubaay fi nga xam ne moom moo nekk Tchad waaye yemuñu foofu dañuy jaay ay parfum de chambre parfum yoo xam ne xet gi na mu mel maara day taal yi ay gel de corps ay poudre de lit waaye yéen mës ngeen dégg bu ngeen bëggee xet bu neex ngeen nekk jigéen pour seen kër ak seen néeg jokkale nag waa kër jéeg ji waaye kër jéeg ji ne yemuñu foofu dañoo bëgg dellu cosaan indi li nga xam ne moom moo nekk petit pagne yooyu le ba pare nag gën ko moderniser waaye seen xeeti nuisette nag ñëwal xool lépp loo xam ne tenue de séduction la kër jéeg ji indi nañ ko ci Sénégal sëriñin bi ñu ngi ko daal di tuddee li nga xam ne moom moo nekk rukku jeeg jeeg bu baax dëgg da ngay am rukk waaye nag bu fekkee da ngeen a bëgg sañ sa guddi bëgg a bàyyi bu suuf seddee ngeen bëggal seen alaaji daw xool kër jeeg ji ay sër ay fer yu baax ay nuisette yu am solo kër jeeg ji dañuy def location jacuzzi di def prestation soirée amoureux da ngeen am anniversaire de mariage jokkoo leen ak kër jeeg ji wala ngeen am lune de miel de noces waaye di li nga xam ne moom moo ngi livré partout dans le Sénégal et partout également dans le monde et oui kër jéeg ji mu ngi fi nga xam moom Maris 2 en face rond-point station Total ou bien contactez-nous dès au 77 080 63 23 waa ak kër jéeg ji daal jeex na ci Sénégal.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 Afro et Nature, la marque sénégalaise, naturelle, efficace. Et eh oui, nos clients en témoignent. Afro et Nature vous propose des produits de soins pour hommes, femmes et enfants élaborés en laboratoire sans aucun ingrédient chimique, fait par des Sénégalaises ici même. Pour prendre soin de vos cheveux défrisés ou crépus, faites confiance à Afro et Nature. En plus de la gamme pour cheveux à base de beurre de karité et de plusieurs huiles végétales et actifs un mois à 8 ans avec des ingrédients doux et riches comme l'amande douce et le tulukuna. La gamme Afro et Nature à base de beurre d'avocat enrichie à l'huile de moringa et à l'hydrolat de goyave et de persil. Que dire de toutes les huiles dont nous disposons? Moringa, Nîmes, pastèque, baobab, soumpe, citron, coton, ricin et coco. Qualité premium. Testez nos best-sellers. L'huile de croissance accélérateur de pousse et le lait hydratant cheveux pour pour une mais aussi des produits tout efficaces pour prendre soin de la peau. Notre sérum vitamine C enrichi à l'huile de baobab embellisseur de teint fait un carton. Plein d'accessoires sont disponibles comme nos fameux bonnets de nuit en wax intérieur microfibre pour dormir avec du style tout en protégeant vos cheveux. Pour en savoir plus, composez le 77 273 60 60. Visitez notre site internet ou notre page Facebook Afro et à notre Afro et Nature, votre peau et vos cheveux ont soif d'Afrique. ma sama bopp nii am diplôme yi toll nii jël sama àdduna yëpp nag wékku ci benn nit te man damaa war a dundal ñaar maa leen takk maa leen war a yor donte ne sax ay am na lu muy def moo yor tey dépense su mais ñaaña ñaaña ñaaña ñaaña ñaaña su yëgee ne mboromu jigéenam wujjëm moo yor dépense kër gi moo ko yor su ma fàttaliku ne Abdou am na lu moo xam non loolu bu ko bu ko ñaan yéegee sama gàcc la parce maa ko war a dundal warul dépendre ci kenn d'accord en plus Abdou ne woon na ma tey mun naa neex waaye jigéen ñi heure bu naqadee loolu moo dara calculé il est temps nag ma jóg sama bopp yoral sama bopp sama kër dundal sama soxna parce que loolu laa wax loolu laa signé woon ak lislaam lu ma ci waaye defal nag daf ma dimbali rek waaye du war ok d'accord kon ñëw nga. waaw ñëw na. man yaa ngi si biir di noppalu sax. maa ngi Saalum Saalum quoi. waaw gis nga daf ko yëfu ndaanaan rek. gis nga. ah c'est bien kon baax na. kon de li wolof naay di wax de woo ko dama dëgg gëstoo parce que man tamit dama laa soxla woon. Hmm. amoon naa benn question daal boo xam ne yàgg na maa utiliser. ma ne la su ma amee occasion dinaa la ko laaj. Hmm, maa jàmm la rek.

mais ana Clarisse. waaw papa yaa ngi naax de. te du yéen ñaa yéen fanaan. yaa ngi naax. ndekkil. Ah, ok wax nga dëgg. waaw ndekkil. papa lala dafa tàng. waaye tàng gu demee nan yow lii mooy sa café. nekk. waaye café gi xaw ma da nga koo xorom xaw ma da nga koo suukar lii café la am da nga pare pour posé na ma yow. waaw oui non su fekkee neexul rek nga may ma def. ndax la. non suur naa. bu baax. pourtant li dara nekkul ci sax de fa naqari deret rek. ñaaña hmm. man ak yow yàgg nañ non waaw mais dama am benn constat bu ma def hmm. Astou bi mu ñëwee ci kër gi ba léegi hmm. yow yaay jox sa bopp dépense booy def say course doo ma laaj damay jékki-jékki rek nga ne ma lii maa ko jëndal sama bopp ngay sante di jox sa bopp dépense ma bëggoon a xam xaalis boobu noonu fan nga ko jëlee. yow loolu dara yow tamit xarit bi loolu garaawul tamit. garaaw na kay. soo jox sa bopp dépense may jox may lekk jaadul ma xam loolu fu mu jógee. mais loolu fu ma koy jëlee du fenn fu dul takku ay sant bi. li ma joxoon noonu takku dënn bi loolu laa économiser di ci dënt loolu de ah yàlla na jàmm yàgg. ñaañu nag. changement am na changement bu mag ci wàllu maturité ñaari ni nga doon def xaalis yaa ngi koy xelaat pasar pasaree ko jël xaalis yàq ko léegi mu ngi mel ni nga jël mburu xar rek diw sa bër ci benn côté bi tey boo toogee ba ne ma man maa ngi économiser li ma la joxoon ci takku dënu takku aysatu aysatu ba léegi moom nga téye di jox sa bopp dépense di def say course franchement changement am na léegi nag dafa am loo xam ne la koy ñaan lu jëm ci wàllu dépense su kër gi man la war maa ko war a joxe wàccoon naa la ko soo ayetee laaj ma dépense ma jox la ko kantaan na course yu sew yi wala yenn dépense yoo xam ne c'est personnel pour toi mun naa la ko bàyyee. bu loolu weesoo sax. comme sama benn cousin fu doon doon waxtaanal affaire mhm. entretien pour nga dem def ak moom entretien te gis naa ni boo demee ba def ko moom gëneel dina ci juddu ñaaña entretien nga wax pour liggéey pour kan ah, ñaañ da nga ne man liggéeyuma ah, comme dañ may nëbbatu ma réer la yow dara dalay dal doo ma ko wax ma koy yëgee feneen wala di ko déggee feneen loolu rafetul bu na yow li ngay wax ay sat loolu nga ma war di wax waaye waroo di wax ay sat di ma bàyyi ndax ay sat fi mu toll ci yow man toll naa fu ko raw ci yow kon waroo ma nëbb dara yëg naa ko bu yàgg nag. sat li nga wax dëgg la mais ñaaña damaa bëgg xam fan nga yëgee man liggéeyatuma non dama la ko ñaan rek s'il te am na solo dama bëgg xam. far nga yëgee ne sa borom kër liggéeyatul. waaye nag li am solo mooy dañ fexe nga def entretien bi. d'accord bon du question dama la xeeb nag wala dama la yeb walla dara boo gisee waxuma la ko am naa ay raison mooy dama yaakaar ne man ak yow fi ñu jaar ñu nekkoon ci lu neex te bu naqadee su ma la ko waxee nga dem bàyyi ma wala muy indi samay problème man ak yow. loolu kese moo tax waxuma la ko mais su ma xamoon comme ne tey soo boo ko yëgee du la def benn problème doo ci duñ ci am benn situation man ak yow duma la ko laax. man de ànduma ci loolu ndax say dañ pour le meilleur pour le pire wala. kon nag bu ñuy ànd bu neexee bu naqaree war nga maa mën a wax ma xam ne trouvé ndoo solution. d'accord loolu moom maa ngi ciy jégalu. mais yàlla baax na. léegi nag heure rek ba sa xel daal. boo ma laajee ma jox la numéro bi nga woo ko dem foofu. loolu moom dama ci def xel ñaar incha allah dinaa la laaj numéro bi pour ma woo ko ut benn entretien moom encore une fois merci beaucoup ci taxaw bi merci beaucoup ci compréhension bi tamit xam naa fi ma féetee xam naa aussi lu tax ma choisir la jërëjëf merci beaucoup. kon jeex na indi loxo bi. aywa. waaw mais dara lewu ci indi rek yow. waaw yow joxe loxo bi tamit. dinaa ko ci teg de tey. <laughs> waaw baax na man maa lay bàyyi. waaw d'accord si biir. li ma gën a maa jaam la séeri ko ko daa am koo jotel ci biti léegi laa yeewu dem dugg si waañ bi fekkuma fa sama ndékki est-ce que tu trouves ça normal déedéet waaye ban la ko ko man mii sax loolu laa def xëy naa ñu tegal ma café ak mburoog lépp ma romb ko fa sabotage dem sama yoon ndékki sax defuma ko man mii te yilif kër gi nga ni ma waaye xëy na tegal ma café lépp ma romb ko fa sabotage génn léegi nga def loolu laa def. kon de bu yeboon na sa nammel jël fin tey laay dugg si waañ bi toggal la ndékki buy wax ni nit. loolu boo ko defee def li ma gënal waaye leen ma jaaxal séeri kooko. tey de da man Clarisse jeeg bu ne faaj. may sama aaw bopp di sama ñaareelu bopp man ma jug ne damay toggal sama petit papa ndékki kan moo ci sañ a wax kenn te kenn sax da warta wax dara toggal xaar sa ndékki eh. sieste rafet na de. ah yow nii ngay sieste. <laughs> merci mais man sieste ma de maa ngi woon ci biir néeg bi. mais li nga sant rafet na macha allah tarkal la. lépp yow la li nga nekk doon wax ak ñaar yëpp man dégg naa ko nelawuma de. alhamdulilah rabbi wax ma lu garaaw te làqatuma ba ma koy waxit yàlla ba nga déggee la ma wax. muy benn baa ma yëgale rek ñaareel ba yow yaa wax assur sama ñàkk liggéey sa ñaaña sama ñàkk liggéey. <laughs> kan ma sa nettali kat man. da nga mos a wax ak man dara ci biir néeg bi mu daal mu dugg ci salle de bain bi waxatuma ci biti. mosul am baax na am problème mu la bëggoon xam rek. en parlant de ça entretien bi ma la waxoon donc fàtte wala lan ba ñaañ la ay wax entretien. man damay sant yàlla bu baax xamul tax sama ñaari soxna yi ma yàlla dënk di nga seen wujjee ci lu positif lañ koy jëmale. waxu wujje bi teg ko suuf man wujjewuma ah pour man benn jabar nga am boo aayewul ci man da nga dem voyage mais pas ay ay ay la de ba nga commencé dëkkal samay nopp que man nga bëgg ba tey pour man benn jabar nga am mais nag sant yàlla puisque nag ne moo def mu utal entretien nga utal ma entretien yàqul dara tamit man borom ñaari soxna la encore tey fu may dugg fu ne dama fay dugg ak garantie ak lu am doole dinaa yër bi nga def yére bi ma proposé ma xool ban moo ci ëpp rentabilité ban moo ci gën ma nangu boobu. entreprise bi ma la wutal du entreprise yu como man du ma como xam nga ma xam nga li ma nekk ci digg dëkk bi donc du ma la wutal loo xamante ni doo ci nekk doo ci sant sa bopp arrête amoo loo yër fëre bu ma comparé te ak kii que ce li ma la wutal ci loolu ngay dem. waaye damaa war a dem bu ci ñaani rek dem sa bos xool bu ci gën a neex wala bu ci ëpp ma dem jël boobu. <laughs> sama bos moo gën ndax xam naa fi ma la dugal man damay liggéey maa ngi ci dëkk bi man nga bëgg loolu nga ma yàgg wax kon ci li ma lay dugal ci loolu ngay dem. mosuma la ko wax Aïssatou bul ma dugal mosuma laa wax ne yow laa gën a bëgg ka ñaañu. Aïssatou mooy wax ak yow de. bu baax sa reenu xol xale bi nga dëkkal ci ay noppam ki ku dul man bëggoo ko yow wax nga ma bëgg nga ma walla waxoo ma ko la ma wax ci biir néeg ci biir néeg bi la yem te ba ma doon wax wax jooju situation laa nekkoon situation la kon yow da ngay xam situation nga wax man que man lan lay lan lay représenté Aïssatou bu ma yëngal de Aïssatou xool ma ci ay bët dama laa bëgg bëgg ñaañaa mais tolloowul tey daal mënoo wax wala mosaka waane ba ma wax leneen lu dul dama laa bëgg bëgg naa ñaaña gis nga li man maay wax ak yow de Aïssatou yow yaay ki may fekk ci néeg bi bu suuf seddee nga wax ma ko yow yaay kiy doxaat ak man ba ci saal bi nga waxaat ma ko ay waaye dencante buñ nekkee ci néeg bañ yegg ci benn level foofu yàlla toppiwu ma daal la ma foxlu na rek yàlla baal na ma ko mais ci àdduna mosuma laa wax ne yow kese laa bëgg wala yow rek laa gën a bëgg a ñaan. waxul néeg moom duñ ci topp kenn. yaay ki lay fekk ci néeg bi waxaat ko mu àndaat ak yow ba ci salon bi nga waxaat ko. yow du ci néeg bi nga may xaar waxu moom waxu néeg bi la. fi may jàpp daal ba ma yegg fi dara loolu dara nekku ci loolu waxu néeg la bëgg di tàkk di nes nes yi ku leen xool respecté leen déglu leen ma ma jox benn adresse bi Deli Fashion Boutique yegg nañu ci diwaanu Sénégal mbokk yi laay liy di laaw lii Deli Fashion Boutique nekk ñaari volet volet beauté ak volet li xam ne moom moo nekk habillement waaye ñun dañuy jaay ay produits de beauté yoo xam ne c'est cent pour cent bio yoo xam ne ñun ñoo koy daal defar cent pour am nañu ay produits éclaircissants am nañu ay savon de visage bio lépp luy tax ci sa kanam dafay ñëw dindi ko ba mu set des savons ay gommage bio boo xam ne dafa am senteur yu bari am nañu tamit ay gamme teint boo munti am yegg sil xool sunu ay gamme am na gamme ébène gamme caramel gamme marron clair ak gamme blanchissante boo bëggee weex tàll am nañu ay poudre ay poudre blanchissante yoo xam ne dalay weexal tàll am nañu poudre sipi white poudre Grita ak poudre Giga bu fekkee da ngeen a bëgg a weex tàll yooyu ci gën waaye poudre yi li ci gën a neex mooy dañu koy jaay en gros am nañu aussi ay huile bio yi nga xam ne dañ koy daal di pressé nañu ay crème réparatrice yéen ñi nga xam ne da ngeen doon xeesal ba seen yaram yàqu crème boobu mooy ñëw réparer seen yaram ba mu dellu zéro waaye nag am nañ tamit ay kit lèvre rose pour ñi bëgg am ay lèvre rose am nañu ay gommage lèvre waaye am nañu ay crème main moo ngeen bëggee loxo yu nooy jëli fashion boutique bawuñu dara ndax dañoo bëgg jigéenu Sénégal foo ko gis muy nes-nes yi di tàkk bu dem bi yàppandiwul jokkale nag ñun ci 70 690 96 44 jëli fashion boutique ñun ñii ñoo ñëw ngir dekkil jigéenu Sénégal Clarisse. waaw Ndeye Comba. ça va ça va bien. bien tout à de dama defe ne woon yaa ngi ci biir di nelaw moo tax maam moo laa defaral mu nekki. dëgg la kay mais am solo. Hmm. Mhm. jégalu <laughs> mel ni ndékki ngay defar nii de. ndékki de daay defar nii. Hmm. di ci yóbbaale sama petit papa xam moom mënul lekk lu dul sama loxo. Hmm. kan maam moom moom moo ndékki na ci suba defaral naa ko mu ndékki. waa wax na ma ko. Hmm. mais nee na santiiru ndekki bi daal moo tax te xam nga dafa war a lekk ba suur nag. Hmm. Hmm. loolu la la wax. baax na maa ngi si biir. d'accord. Mamor. Clarisse la lay def ci waañ bi. da ngaa yor ay bët di xoolee am. yor naa ay bët te gis naa ko muy togg ayewul tey man maa aye. ay waaye war a togg. lu tax muy togg te mu xëy defaral la ndékki lu neex nga ne ko fa ñu ko saf xorom xaw ma su neexul kay danga maa war a wax ma defaraatal la beneen ndékki. dama ne biir du poos ba loo jot dugal ci da bu dee ayewul te tey ne sama bés nag man ma aye. ayeb jigéen guddi la bëccëg kum neex war ngaa togg te am na droit toggal ma de. ndax maay borom këram ndax maa bëgg mu toggal ma sax. yow loolu nga gis. loolu am na. waaw baax na dinañ ci waxaat. bu soobee yàlla maa la koy waaye kii bari na wax li muy ñëw fii dara di rajo rajo di wax nii rek. yow da ngaa tëdd sax. ma sonn tey li ma daj ci wàññi moo métti. yow tekkil ma sama chaîne bi s'il te plaît. dafa nga yëkkati ma rek. jaaro bi moo gën a métti sol. xam yaram bi de laaj na ak fudd nga xam ne ngeen damb ma Crete ak Mali bi Aziz lay waxal waaye yow kenn déggu li ma wax ne déggoo sama yaram dafa laaj benn massage ak damp bu métti yow nga tëdd rek wan ma ginnaaw mais ndi yow lay waxal

waaw wala déet. buuna damay nelaw yaa ngi may déranger. yow da ngay kaf kafoo. sama yaakaar bi nga tas ci añ bi moo ma jàpp damaa gémmantu. mais tax na yow nga tëdd war ma ginnaaw. damay noppaleeku damay nelaw dama sonn. amoo sama jot. d'accord. jàmm kon. new say kàttan dafa nekk feebar boo xamante ne bu gaaw ci indi xeebaate la bu gaaw ci indi yabaate surtout nag ci sa digganteeg sa soxna loolu moo tax garab bii nga xamante ne liggéey naa ko fii man ci sama wàllu bopp ci sama loxo ak xam-xam bi nga xamante ne suñu borom dénk na ma ko garab bii nii képp koo xamante ne dafa am néew kàttan ci wàllu sëy bu fekkente ne dégg nga maam du feebar ci moom mais yokkute rek la bëgg suy paree pour sëy daf koy jël 10 minutes avant l'action garab bii nii moom loolu moo ko tax a jóg mooy vite fait mais su fekkente ne nit ki dafa am feebar nag boo xamante ne dafa yàgg ci moom traitement lay def moom traitement de deux sachets mi ngi nii walla yu trois sachets su fekkente ne nag doomu aadama moom dara jotu ko maanaam mi ngi toll ci diggu ndawam dara jotu ko te bëggul feebar boobu ñuy wax néew kàttan di ko dab dafay jéem a wut gàllaaj bi gàllaaj bi képp ku ko takk sa ndigg néew kàttan du la dal sa giiru dund fekk yaa ngi dox ci kaw suuf di noyyi ci kaw suuf nga am gàllaaj bii ni néew kàttan du la dab du la dal sa giiru dund am na na ñoo xamante ne yàlla dafa leen di nattoo ñuy am awra bu ndaw boo xamante ne dafa gàtt ñooñu pommade bii laa leen di proposer nga xamante ne troisième pied la tudd bii pommade du massage la dafay yokk endurance dafay yokk longueur te itam nit ki su koy utiliser duy gaaw di pare ci sëy dañuy yëngatu ci wàllu ñaan yàlla ci wàllu faj rab ci wàllu istixaara ak lépp loo xamante ne jafe-jafe la yi nga xamante ne doomu aadama yi ñi ngi jànkoonteek moom si jamono bii ñu nekk nga xamante ne jamono bu la jamono bu lëj la waaye ñaan yàlla mën na lu nekk comme ni ko yàlla waxee ci biir alquran wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin wàccee nañ ci alquran loo xamante ne saafara la ak rahma la ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gëm wa axiru daxwaana an alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp